Eh, Madiambal sànq commencé woon nañ ci wax eh, <laughs> lan nga xalaat ci nga joxe exemple France aussi gis nga ba mu nekkee régime parlementaire. oui la la la crise politique la cinquième république pour remettre en cause ça. pourquoi ñu bëgg def yëfi jinne naan dañuy indi ya nga xamee ni que xëy na euh, pareeguñu pour loolu. il y a trois semaines on a découvert euh, que Macky Sall dafa abroger le décret de de de dissolution de de PASTEF mu ñëw yokk xar mi karaw ci ñi ñuy taxaw di ne. Macky Sall a été le directeur de campagne euh, de, de, de, Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye, Diomaye Faye. Mm-hmm. Euh, da ngay conforter loolu da ci da dang da da ànd. non fa wax question bu difficile la pour man mu doon ci loolu xam nga lan moo tax moo di candidat Amadou Ba moo nekkoon candidat Macky Sall diggante Amadou Ba ak Macky Sall yàlla dogal ba nekk ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk dama lay jege. dox ci seen diggante lu jiitu élection yi am ay ñagas-ñagas ci nekk ma ko doon dox di ko lijjanti ñu may dégg kon bu amee li nga xam ne wax nga ko nii moom waxul Macky Sall moom Amadou Ba waxul doon may wax seen place. <laughs> ah Madiambal. non mais non vous n'êtes pas vous n'êtes juste xam nga <laughs> dama la dama la dama la clarifier ni la. Ah, mais yow vous vous vous pouvez aider l'opinion à ne en parler en tant qu'observateur. c'est parce que dama ne dama ci jouer un rôle xaw ma loo jouer rôle mënoo ci nekk observateur mën ma ci nekk observateur. mais admettre nga ne ñagas ñagas. yu metti am na problème ça la va de soi. mais mm. écoutez faut pas faut pas aussi man bokk naa ci ñi ko dox yàlla tële naa ci am sotti na am man tëlewu ma ci kooku yàlla rek a xam mais ñoom ñaar ku ci nekk ci ñoom am na loo mën a wax Sénégal te war nañu wax sénégalais. bu boobaa bu ñu waxee nag man après mën naa cee wax mais fu mu toll nii ma dëgg na ku mais mais lan lan lan la ñu mën a lire derrière euh, ni Macky Sall toppatoowee. du ma ci lire dara. <laughs> <laughs> li ma lay xamal daal moo di j'ai été un acteur et je l'assume publiquement parce que c'est des amis j'ai vu qu'il y a eu des situations de délicatesse je suis intervenu personnellement et j'ai fait intervenir d'autres amis sur ça mais mais mais contexte précis. non non man mais lañ ca waxanteeg lañ ca dox duma la ko wax. non ñoom buñ ci waxee. ah su ma gisee ñu wax dudul noonu am naa sañ sañ xëy bu leen demeewul noonu. non man waaye ñoom ginnaaw waxaguñ nag moom. ma ne mais man ni rek ni ko daal. non non gën naa observateur bi de ce point de ko dama da nga koy teg mais ban lecture politique lañ lañ mën a am euh, ci ni conditions yi Macky Sall aménagé. Mm-hmm. pour le duo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye. concession yi Macky Sall def yëpp li mu def yëpp qu'est-ce qui peut expliquer que Macky Sall euh, en pleine campagne jël de la distance jël de la de la hauteur bàyyi kaawam ak candidat ba ñu débrouiller et puis parallèlement il a aménagé de bonnes conditions euh, boo xam ne tey permettre na ñi ñu réussir seen mission waaw jàppalewul candidatam wala newal na ko doole renforcer na kële kon mais ñoo ñoo gagné ñi mu renforcer ban lecture politique moo ci mën a laaxatu. c'est quoi le calcul politique derrière. calcul politique c'est quoi le calcul politique derrière. parce euh, que nañ bàyyi ba ñu wax rek ñoom. non mais y a forcément un calcul ah, politique derrière mais man du ma xëy na ñàkk on ne fait am nga objectif booy def la ci def man personnellement c'est pas am xam parce que du ma na parce que xëy na mën na am waxuma calcul politique. mën naa am ay actes qui sont posés mais est-ce qu'on m'a expliqué les raisons le, le politique derrière on peut ne pas me l'avoir dit je peux l'interpréter interpréter non non mais pourquoi may interpréter la nga xam ne dama la ne du ci wax donc c'est ça mooy problème bi moo di que tey ah dama lay wax ne la ah du baa ngi may dégg Macky Sall yi nga may dégg hmm? bis bu yàlla sàkk nag may jokkoo ak ñoom ñaar ñëpp ñu ngi may dégg ñoom ñaar li dox seen diggante ak la fa xew lépp ay mag magi jëmm lañu duma leen ko waxal bu ci kenn génne wax sénégalais yi dégg ko bu ci kenn waxul nag du man maa leen koy waxal